Euh, monsieur Sène Ibrahima Sène ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen nga bokk ci PIT doon tamit PCA Miferso tey ñu dooree waxtaanu euh, li xew jamono ji muy mbiru Sonko Adji Sarr ñu gis la ngay artu euh, ci benn euh, fait nga ne projet insurection bu Sonko wute nag projet IDEWA bu PIT ndax dafa am ñuy laam-laame ne dafa niru. waaw dafa am ci réseaux sociaux yi. ñu ñu ñu bind di waxtaan yéen yéen a ngi nuyu critiqué nañu critiqué waa Pastef te pourtant ñun def noonu ci temps Wade defoon noonu lu mel noonu tuddee ko IDEVA initiative pour le départ de Wade mm-hmm. IDEVA yaa ñu ni kon ñun am ñu lu ñu wax parce que ñun ñoo ko njëkk a def ci Sénégal daal mm-hmm. moo tax ma indi leeral ni leen bokkul parce que ñun li ñu li ñu wax li ñuy wax initiative boobu mm-hmm. dana ko tëral ci séminaire boo xam ni moom la parti opposition yi fi nekkoon yëpp téye toog wax xalaat fi réew mi toll gis ni Abdoulaye Wade ni muy doxale ku ko bàyyi mu continuer réew mi ci guutale jëm. ndax processus bi moo leen wutale wala idéologie bi. du question processus bi rek. Mm-hmm. gis nga euh, li li li li undu yi. Mm-hmm. force yoo xam ko. bi bi ne Abdoulaye bu nu ko bàyyi mu continuer nii. réew mi ci guddal jëm ci économie ak fépp loolu tax ñun pays yi ñu jël seen initiative ni nanu def organiser Sénégal yi pour que Ablaye Wade démissionné mhm. bàyyi nguur gi euh, provisoirement président Sénat yor ko Pape Diop la président Sénat bu ko yoree teg gouvernement d'union nationale gouvernement d'union national boobu euh, euh, rectifier li rectifier pour préparer élection présidentielle bu bees ci neuf mois kon bokk ñun du woon insurrection du woon préparer coup d'état ñoom euh, Sonko seen mbir lu ko wund dañu jiiñ Sonko euh, viol ba jigéen bi ko jiiñ affaire bi ñoom seen diggante Sonko jël ko def ko politique Sonko ni non non lii bu ñuy wax ba ko di dara du complot bu gouvernement bi teg pour ko tere pour pour ko tere nekk président en deux mille vingt quatre kon yow àndoo ci ñi naan complot la euh, pour daaneel adversaire bi nga xam ne moo fi nekk jamono ji teg ci tànk waaye mani bu fekkee ni bu fekkee ni adversaire bi adversaire la boo xam ni jar na complot ñu wax ah, mais mais parce que lox jaru ko mhm. Sonko lan la fi naam am na seize pour cent ci élection présidentielle te kuréel bi ko ëmboon pour mu am seize pour cent dafa tas ñu xuloo ba ñoom mëntoonu ànd moom dañoo xuloo wala Macky ko tas ah, ah bon da nga bëgg a wax ni Macky euh, Boubacar Camara Macky ko Macky ko ah parce que gannaaw audience gannaaw audience bi ñu wax ne Boubacar Camara am na ko ak Macky ci lañu ñu gis ne il y a mani mani mhm. Boubacar Camara kon bokk euh, ñi nekkoon Euh, euh, euh, jot na ñoom ñëpp ñëpp te bàyyi ànd tuddoog Sonko Macky moo leen moo leen moo leen nger ba ñu gën. non session bi foofu la commencé audience bi ñu accordé à Boubacar Camara. mani yow yaa ne yow yaa la commencé mais ñi bokk jot na. li ñu sikk Sonko mooy bi présidentielle bi jeexee ba léegi moom talul ku loolu boppam ak waa parteem faaleetul ñi mu àndaloon ñi ñi ñi ñi. ñu xar seen tànk tubé ànd ak mu paale turleen mm-hmm. parti ak boppam la taal ñu ngi doon doon defaru pour que mën a gën a jekk pour jéem a dem deux mille vingt quatre loolu boobu naqar moo tax bi ñu gisee eh, eh, eh, Boubacar dem en audience mm-hmm. ñëw euh, Sonko am lu ci wax gay yi dafa yar ñenn yi loolu moo tax ñu génn ci de parce que moom daal yaakaaroon na jot na mbir boppam la te loolu nag ñoo fa nekkal ay góor lañu ñu amoon yaakaar ci moom def lu ñu war a def ba mu am li mu am du bëgg leen jaay yéen yi loolu loolu am. waaw bu weesoo jot na sànq nga ne euh, Pastef les patriotes du parti politique. ma ne. Mhm. Euh, patriote euh, Pastef du parti politique li ñuy wax parti politique du loolu. ndax boo xam ni. Sonko moo ko sos ak ay ñooñom euh, taxaw jël réseaux sociaux yi et euh, euh, propagande pour que ñu jàppale ko moom Sonko moom Sonko ñu jàppale ko pour que li mu nam ci réew mi mu def ko loolu du parti politique. da nga gis ne dafa gën a jege activiste yi. que moom activiste la. activiste la ci boppam activiste mooy groupe groupe bu formé ñëw di yëngatu. di yëngal di yëngal di yëngu yëngal loolu mooy activiste moo tax mu dem ci ñëw ay Guy Marius Sagna ak ak ñooñu te ñooñu euh, ku ne xam ne du ñu parti bo bi bi même euh, euh, le directeur général de de Dakar Dem Dikk bi ko naxee mu ñëw jigee ko parce que moom mi ngi yëngal donc moom ñoom yëngal te loolu moo tax moo tax itam yanamaat ñi nga xam ñoom tam ay activités mu dem ci ñoom moom loolu la xam xamul parti politique kon bokk loolu bu yaakaaree ni yëngalam yooyu mu yëngal dana mën a tax euh, mu te yorul parti yorul mu ko mën a dar bam moom mu jot ci nguur gi bu fekkee loolu lay yaakaar dafa sonal boppam xam nga da nga da nga wax Euh, li wutale li nu waxoon ak moom li mu wax ah, am na leen aussi mhm. li ko wutale li ko leen mu ko mooy ñun li taxoon ñuy wax daanoo gis ni réew mi fi mu jëmoon du noonu mhm. moom li tax mi wax dana ko jiiñ ni dafa violé jigéen mhm. jigéen moo ko jiiñ moom mu jóg ni non non lii boo ko gisee man dana bëgg a comploté bëgg ma tere pour bëgg mën a nekk président en deux mille vingt quatre te kon bokk yëngatu bi muy yëngatu. Mhm. pour bañ a dem ñu àtte ko la même bu ñu ko joxe convocation bu demee dina continuer yëngatu pour que ñu bañ ko condamné dina gën di yëngatu pour que euh, bu ñu ko bàyyiwul réew mi kenn du ko mën a gouverner te loolu nu ko firndeel mooy Y'en a marre ci boppam moo jóg ni Sénégal dafa war def comme ñu def Mali. ànd ak Sonko ñu def Mali mooy taxaw yëngatu ba daaneel euh, euh, IBK armée bi jël pouvoir ñii loolu nag ñoom duñu ko seetaan. te ji boo ko doon conseiller loo koy conseiller en tant que sage et tamit ancien bi nga xam ne observé nga euh, situation politique yu bëri. man du ma sage je politique du ma sage. Mhm, li ma wax mooy. Mhm. te bind naa bu mhm. na bàyyi na bàyyi li mu mëbët yëgal réew mi te dem ji yoon yoon atte ko normal mais bu jéem a yëngal réew mi yaakaar ne fi mën a aw ba kenn du ko atte mais am na ñu ko fi jéem mënuñu ko mais heureusement ñooñu euh, euh, bi ñu koy jéem te mënuñu ko euh, fekkul woon réew mi toll ci eh, jafe-jafe boo xam ni mhm. mbas moo ko indi ak danger yoo xam ni eh, fan et puis rebelle Casamance yi yëf yi commencé yënguwaat kon dox ci jamono boobu ndax jarul am tiitaange tamit ci ni ñu gisee jamono ji yëngu-yëngu yu bëri ci réew mi moo moo tax ma ne jamono jamono boobu ñu nekk mhm. taa yii ñu nekk ku ni da ngay jéem yëngal pour indi fii fitna pour bañ a pour bañ mhm. bañ la yóbbu ci yoon mhm. loolu boo ko defee en tout cas ñun duñ la seetaan. d'accord suñu xaw dañ wax ni ni nañu seetaan seen bopp euh, kii na bàyyi li mu mëbët. Mhm. Euh, na wax yanamaar ñu bàyyi li mu mëbët teg ko fële ndax loolu du yoonu jàmm te moom mu dem buy ji ñu àtte ko ci normal. Mhm. bu ñu ko àttewul ci normal nag euh, askan wax parce que bi lan la procès public la day toog avocat yi toog. ñëpp yi bu ci kenn ànd ak moom ci loolu ndax sunu réew mi eh, eh, laajul loolu mhm. jamono bi laajul loolu bu koy attee dafay leer nañ ndax day toog ak ay awokaam mhm. eh, ki ko jiiñ viol day toog ak public bi ñëpp di déglu mhm. kon ba ku ci nekk di wax jox sa morom mu wax pour juge bi mën a atte kooku dana leer nañ bu fekkee ni ñoom lañ fa wax yëpp mhm. euh, euh, euh, am na dëgg te bi àndu ci en ce moment là askan ñu jëpp ñi juge bi li mu def du noonu nanu seetaat procès bi mais bu fekkee ni li li fa jógee tax ba war nañ ko mën teg daan mais dañ ko teg daan moom du yàlla du yonent nit la kon bokk. kon bokk mbir mi nañ ñu nañ delloo si seen xel xam ni li ñu xam nañ ko fa mën a xam nañ ko gouvernement xam na ko ñun waa benn bokk yaakaar xam nañ ko sénégalais war nañ ko xam. duñ leen bàyyi ñu def ko ci réew mi. ngay PCA bi Ferso tey jii ñu wax ci suñuy ressources euh, minérales ñuy wax ne exploitation bi dañ ko sous-exploité ban jàngat nga am ci yooyu les kàddu. maa ni sous-exploitation bi amul ndax ñu ngi leen di exploité dëgg dëgg euh, pétrole bi mi ngi ñu ngi koy commencé exploité. Uh-huh. bientôt. Uh-huh. Euh, fer bi bu dul woon mbas bi ba léegi ñu exploité mbas mi moo tax. négociation yi doon am moom tak euh, euh, or bi ñu ngi ko exploité ba léegi mm-hmm. euh, ciment ñu ngi ko exploité zircon ñu ngi ko exploité amul fii benn ressource minière boo xam ni exploité wuñ ko maintenant ndax Sénégal mi ngi ciy gis boppam bu baax mm-hmm. loolu mooy wax ji code minier yi ñu amoon ba léegi ba temps yi code minier boobu mën a woon may Sénégal mu gis ci boppam bu baax mais code minier boobu changé nañ ko changé nañ ko ba nga xam ni léegi def def beneen code pétrolier code minier ak code pétrolier bi bi ñu def tax na ba Sénégalais yi dañu ci gën a mën a gis seen bopp. Mm-hmm. non seulement état li muy participer ci capital bi dana yokkul mais aussi li ñuy wax continuer local mooy sunu entrepreneur yi sunu liggéeykat yi. ak suñu artisan yi dañ ci gis seen bopp bu baax ci biir te loolu moo amul woon loolu moo taxoon Sénégal mënu woon gis ci bopp mënu woon gis bu baax euh, ci boppam ci ni ñu exploité miin bi mhm. mais loolu jóge ah, yëpp ñu ngi ci naw ndax euh, réew yëpp c'est la première fois euh, réew taxaw ni exploitation minière am de force mu am contenu local côté local bi mu ñu définir ko ak entrepreneur yi société civile ak artisan yi ñu toog ne suñu contenu local lan la lan lan la war taxawee ci biir ressource bi loolu am na fi. loolu mais ndax Sénégal tey pare na ngir euh, ci bépp fànn euh, ci exploitation boobu ngay wax ne euh, ca lañ jëm jëm ci pétrole bi rawatina gis nañ lu fi xew ca Ngajaga. waaw li la xam nga moom Euh, kenn mënu ko prévoir. Mhm. fexe rek noo ko moytoo ba du mais lii war a garu gouvernement bi te lii nga jaga wane mooy euh, euh, bi affaire bi ñëwee Sénégal amul jumtukaay bu mën a tax affaire bi du bari dégâts. Mhm. loolu loolu mooy njàngat bi moo Sénégal léegi mi ngi taxaw puisque léegi produit pays dafay jëfandikoo ak pétrole bu baax euh, muy koom boo xam ne dañ ko exploité te ndox Sénégal dafa war a te taxaw nañ ci pour wut ay jumtukaay yu mat pour que bu accident amee mhm. ñu mën te taxaw lu gën a gaaw dégâts yi mu du du metti nu mu du métti te dégâts yi daal du bari. tey am ay société civile ñi fi nekk nee nañu euh, wàllum ressource suñu ressource naturelle yi dañ ko war a jël euh, dénk ko assemblée nationale mu yor euh, lépp lu jëm ci wàllum kayit exploitation ak exploration ñu jëlee ko ci loxo état loo xalaat ci le proposition. loolu dama ne parce que loolu amul assemblée nationale war a am mooy voter loi contrôler li gouvernement di def loolu mooy war a baram gouvernement mooy négocier mooy doxal bu négocier ba pare nag ñëw jox assemblée assemblée ratifiée mais eh, exploitation négociation pour ci koom-koomu réew mhm. kooku assemblée mosu ko yor ci benn àddina amul fenn kan moo ko ñu xamuñu àddina ni muy doxe xamuñu état nu muy doxee. même bu fekkoon ni régime la boo xam ne neex régime parlementaire nga xam ni pouvoir exécutif bi moom euh, majorité assemblée nationale bi ñoo leen di tàbb même fu ñooñu as du assemblée nationale mooy mooy yor koom-koom yi déedéet ñoom ñooy continuer di yor koom-koom yi luñ ci def ñëw assemblée pour assemblée ratifiée noonu la réew du yore ay koom li ñuy kax kapp doon ko jox ñoo ko nekk assemblée nationale dafa mel ni vraiment jànguñu xamuñu lu xew ci àddina bi xamuñu réew nan la war a doxe Ibrahima Sène bu PIT PCA également mi Ferso ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf merci